di leen ndokkeel ci bisu aljima bii nga xam ni moo di sayyidul ayam e eh, fa tabarakallahu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax diinu nasiha bi maana diine daal laayante biir lillahi wa li rasul wa li aimatil muminin ci biir loolu lanu ñëwoon nag bëgg a fàttalikonteeg yéen ci seen télévision Safina TV eh, tomb bu am solo aw tomb ba am solo te mod di rek wàccaayu koor xam ngeen ni dafa am ñetti wer yo xamni dana tof talanto wer wi ñu tuddé weeru rajab ak wer wi ñu tuddé weeru sha'ban waye tam ak wer wi ñu tuddé weeru ramadan mu melni ni ñetti wer yoyu weer wu ci nek rek ay ngëneel la feese dell ngëneel yoo xam ni laa tuaddu wala tuxsa kenn mënu ko lim ba xam na mu toll waaye itam kenn mënu ko peeg moo tax fa tabaarakallaahu rajab sunu borom séddoo ko mu nekk di weeram weeru sunu borom subhanahu wa nekk weer woo xamante ni weeru waajal la waajal ngir lan ramadan wéru xéti yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye tam wér wi ci top té moy wér wi ñu nek nga xamné ay fan lañ ci amagul mom lañu tuddé sha'ban Shaaban nak, bo dé ci wolof li ñu min modi di baraxlu wér wi nak mom la ali sattu wasallam seddo mo nek di wéram yenent bi fonku ko lool yenent bi bëgg ko lool bi sallallahu alayhi wasallam joxé ci ay ndigle yu bari lol. ba taxna na sunu borom subhanahu wa taala defal ñi itam ramadan mu nek de farata di ñetteelu wer wi ci xetu yenen sallallahu alaihi wasallam kon ñun ramadan moo di sunu mbokk yi kon dañuy gis ni ñetti wer yi dal rajab sunu borom moko seddo ci teunk waye sa'ban yenen bi sallallahu alaihi wasallam moko seddo waaye tam Ramadan xeetu yent bi sallallahu alayhi ñoo ko séddoo mu mel ni nag dan daan gis ni Shaaban mi nga xam ni moo di weeru yent bi sallallahu alayhi wasallam bu musaa dugg si yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daan soññee aw xeetam eh, ngir lan ñu waajal Ramadan moo tax ñu ne yent bi sallallahu alayhi weer wi ëpp lum daan weer grand bu weeru koor jàlle weer wi ëpp lum daan woor moo di weeru saaban weeru saaban dal bu musa teru yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ji daan woor lu bari lool am na ñoo xam ni dañuy jël fan bu njëkk wala boog benn fan ci weeru saaban ci mooy fukki fan yu njëkk yi ñu woor ci benn fan am ñoo xam ni dañuy tànn euh, fukki fan yi ci digg bi ñu tànn ci benn fan woor ko am ñoo xam ni danoo baaxoo fukki fan yi mujj yi ñu woor ci benn fan ngir barkeeloo ci weer wi ñetti fan ndax woor ci ñetti fan ay ngëneel yu bari moo ci nekk am ñoo xam ni dañuy def fukki fan ak juróom yu njëkk yépp ci weeru saabaan te mooy baraxlu dañ koy woor ngir lan li nga xamante mo ci nek ci ay ngeenel ñu man ko dabu waye fukki fan ak juroom yu mujj nga xamni mo mujj ñom dan koy noppulu ngir lan li mu seess ci wéru ramadan bi ngir lan ñu bana lompañ ngir ñu baña loof parce que xam nañ ni ñetti weer yi yépp wor yan wor woruk wooruk mana la maanaa wooruk goo xam ne yaa ko sas sa bopp di ko defal sa bopp ngir lan bëgg ci ay tiyaaba waaye taxul mu nekk di farata waaw mu taxul mu nekk di farata waaye dañu gis ni bu dee weeru koor moom farata la boo xamante ni fa tabaarakallaahu mënul ñàkk moos ci nit ki eh, rawatina ki nga xamante ni koor war na ko mu taxawe ko comme ni ko borom bi subhanahu wa taala santaane ak comme ni nga xamante ni noonu la ko borom bi subhanahu wa taala diglee ak ni mu ko bëggee mbokk yi kon ala man tajibu asawmu bi maana ana kan la woor war loolu ab taxaw la ab seet la waaye ab nafaraat la waaye ab jàngat la pour nit ki mën a xam kan la woor war mbokk yi bu nu bëggee ànd ak yéen ci loolu pour fàttali dañ wax ni kon yajibu siyaamu ramadan ala kulli muslimin aaqilin baaliqin xaadirin ala sawmi gayra xaaidin wa nafasa waaye wa yu'maru assabiyu in ataaqahu li yataawada alayhi mbokk yi ñu wax ni kon koor daal war na képp koo xam ni jullit nga képp koo xam ni jullit nga koor war na la waaye ban jullit la koor war jullit bi nga xamante ni koor war na ko moo di jullit bi nga xamante ni mi ngi ànd ak xelam mi ngi ànd xelam kon li nga ciy dégge mooy ku dul jullit koor waru ko waaye li nga ciy déggewaat mooy ki nga xam ni àndul ak xelam koor waru ko moo tax xel moomu am solo rawatina ci bépp xeetu jàmm yàlla boo xëy nit ki mi ngi koy jàmm yàlla la ko cay gunge mu mën a wér bokk na ca al aqlu te moo di mu am xel moo xam aj màkk gi la bu fi xel nekkul aj màkk gi wàcc na la moo xam julli gi la bu fi xel nekkul wàcc na la waaw moo xam moo xam lu ci ba di doon la la cay mën a gunge pour mu mën a wér mooy nga ànd ak sa xel moo tax kon koor war ki nga xam ne jullit la waaye jullit bi nga xam dafa ànd xelam waaye itam ban jullit jullit bi nga xamante ne baaleex dafa nekk baaleex maanaam ko majeur waaw ko majeur bi maana e, aq yi nga xamante ni wala sart yi nga xamante ni bu tegee ci ko góor ki ñu ni kii mat na mukallaf aq yooyu fokk mu tegu ci sa kaw donte ka benn la wala bu dee jigéen itam yi nu wax ne yii kat bu feeñee ci yow mat nga mu kàllaf donte ka benn la tegu ca soobaa da ngay mat mu kàllaf ñu ni kon baalix boobu bu dee góor am na dix-huit ans wala jigéen am na quinze ans wala yéen yi nga xamante ne ay màndargala muy ay signes ñu joxe ko su boobaa kon kooku koor war na ko waaye itam ak kan jullit bi nga xamante na xaadirina saw mi am na wéru am na kartanu mën a woor am na wér ga am na kartan ga pour mën a woor kooku itam mbokk yi e, koor war na ko waaye li nga ci jàngate mooy e, ki nga xamante ni fa tabarakallahu amul kartanu woor ngir feebar amul kartanu woor ngir yeneen gàllankoor yu ko téye kooko soobaa kon koor teggee ko na ko ba kere muy amaat kartan gum mën a woore moo tax mbokk yi ñu ni ba ci jigéen ji nga xam ni dafa gis baax kooku koor teggee ko na ko ba keram muy set ba ci jigéen ji nga xamante ni dafa am doom te deretam setagul kooku itam koor teggee ko na ko ba keram muy set waaye nag mbokk yi bu fekkee wax nanu ki majeur dañuy gis ni kon xale bi léeg-léeg dafay jiim di woor kooku dama koy bàyyi ñu digal ko mu woor ngir lan mu tàmm ko ba mu nekkee mag mu bañ a diis ci moom ndax léeg-léeg nga séen xale boo xamante ni wala mag moo xamante ni eh, dafay am yenn at yi waaye dafay sàggane koor lool lool nag la koy waral mooy ba mu nekkee xale tàggituñ ko ci waaye miinaluñ ko ko waaye jàngaluñ ko ko ba tax na bu nekkee mag ay cëram dafay ñàkk sawar ci bana joxe koor googu moo tax kon xataa ba ci julli sax xale bi war nañ koy digal bu amee juróom-ñaari at comme ni ko alayhi salaatu wasalaam waxe muy jàng di jiim pour lan su demee ba tabaarakallaahu julli war ci moom rek fekk boo ay ciram tàmmoon na ko bu baax mbokk yi kon kooku mooy ki nga xamante ni moo war a woor lan lanu alayhi salaatu wasalaam digal bu saabaan terusee mbokk yi xam ngeen ni fi ne ñu ngi ci saabaan am nañ ci ay fan daanaka koor gi li ci des matatu sax weer ay fan yu néew la koor daal su doon jëmm ma ne kon suñu war a gane si ma ne kon sangu na ba set waaye sol na ay yéreem waaye jël na ñetti valisam walis woo xam ne duy nag bu ci nekk da koo duy ba mu fees dell wale ma nga ca duy yërmande wee walis ma nga ca duy njëggal waaye beneen walis bi ma nga ca duy goreel nu ci sawara mu mel ni kon dugal na ci maalu oto bi ay valisam dugg na oto ba départ na tabaarakallaahu mi ngi ci yoon wiy ñëw mi ngi ci yoon wi ñëw daanaka ay fan yu néew rek mu agsi moom gan googu nga xam ni moom lañ tuddee du yuufu rahman gan la goo xamante ni ma nga bàyyi ko fa yàlla jëm si ci ñun kon ana lan moo nu war gan gu mel noonu waaye gan gu kawee noonu waaye gan gu baree noonu ay ngëneel di la gane si ba noppi àndaale ay tiraangam lan war mooy ñu teeru ko bu ëgsee ñu tatagal ko waaye bu agsee ñu nekk ak moom ci jàmm lim bëgg moom gan googu ñu jox ko ko lim bañ moom gan googu ñu fexe ba moytandiku ko loolu ala kulli xaal lay digal mboolem koo xamante ni jullit nga te fas yéene woor mbokk yi alayhi salaatu wasalaam nee na suumu li ruyatihi waaye wa aftiru li ruyatihi lum ca teg fa in xumma alaykum fakmilu iddata shaaban salaasina yowman Ali salatu wasalaam dafa wax ni sa'ban bi ñu nek su amé ñaar fukki fan ak juroom ñent nañu ko sentu sentu nak sunna la waye dafa melni ñu bari legi dañ ko xawa sagane kon sa'ban bu amé ñaar fukki fan ak juroom ñent sentu len bu gene sento yalla dogal ngeen gis wer ñu ne a ah, kon nak bismillah weru koor teruna. lan moo la war bu fekkente ni jigéen nga nga xool sa bopp ndax amuloo benn ngànt bu la tee woor walla déet lan moo la war yow jullit bi nga xool ba xam ndax am nga kartanu mën a woor walla déet bu fekkente ni yooyu yépp nag am na su boobaa la la war mooy ca guddi ga nga daal di dugal nag sa yéene ni fas yéene na ma woor suba mbokk yi benn yéene boobu kese doy na waaye nag day fekk nga ni fas yéene na maa woor weeru koor wi yépp waaye soo amaatee nag benn dog-dog ci diggante bi benn gàllankoor ci diggante bi booy reprendre da ngay dugalaat beneen yéene waaye ala kulli xaal bu fekkee loolu lépp amu ci benn yéene ba rek mën na yóbbaale weeru koor wi yépp kon dal li ma bëgg a jàngale mooy li ma bëgg a fàttali mooy bu fekkente ni saabaan dugg na ñun ñëpp nañ àndandoo jëfe li yent bi salaay sam digle te mooy séentu ba nu gisee ñu woor mbokk yi su fekkente ni séentu nañu gisuñu waaye gis nga ñaar ñu maandu ñu ne ñoom day gis nanu weer wi su boobaa ab jullit dafa am lu ko tënk la ko tënk mooy sariya moo ko tënk nanu doyloo ñaar ñu maanu ñooñee ànd dal di dugal sunu yéene pour woor loolu mooy li nga xamante ni moo jaadu ala ku daal su fekkee nag gis nañ ni séent nañu gisuñu waaye itam dégguñu kenn ku wax ni ah weer wi feeñ na su boobaa nanu jëfee ndigalu yonent bi sallallahu alayhi mbokk yi lan mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mottali caabaan bi fanweeri fan su fekkente ni mottali nañ ko fanweeri fan ba tabaarak ndax weer du passé fanweeri fan acca su boobaa nag ñu yaay dugal nag sunu yéene pour fas yéene woor ndax ku ne xam na ni yéene daa bokk ci faratay koor daa bokk ci faratay koor foofu it bëgg naa ci indi benn jàngale bu am solo ki nga xamante ni moom déggul fenn fon ni weer wi feeñ na mu tëdd ba asamaan set wala ba nu salaatu ba noppi ba julli fajar ba noppi mu soog dégg ñu ni weer wi feeñ na ah su boobaa moom yéenewul woon woor te yéene dafa war a jiitu te ca guddi ga ko war a defe su boobaa kon kooku day jàpp rek àndandoo ak gaa yi woor waaye bu weeru koor wi jeexee bis ba bu daf koy fay la ko waral mooy daf koo yéenewul woon la ko waral mooy daf koo yéenal woon te yéene ga daf ko war a fanaanoo loolu itam lu am solo la mbokk yi taarifu saw bi pour xam lan mooy koor asawmu luxatan al imsaak wa shar'an al imsaak aydan bi niyati taabudi an al akli wa shurbi wa xishyaan an nisaa wa saairi al muftiraat li nga bëgg wax mooy koor baatu koor mooy jàpp ci sharia mooy jàpp japp bu andak yene jamu jaamu Yalla. waaye jaamu Yalla bu andak ñaka lek jamu yalla jaamu bu andak ñaka nan jamu yalla jaamu bu andak ñaka jaxaso ak sa soxna mana sey waye jaamu yalla bu andak bayyi lepp lo xamni boko defé wala nga wax ko mu meuna yak sa koor li tambalé ca fajar baba jant di so li boy koor gudd gàtt lii mooy koor léegi nag taarixu fardiyatu saw mi pour wax li yàlla farataale ci ñun koor te farata mooy loo xam lu mënta ñàkk farata mooy loo xam boo ko bàyyee am bàkkaar léegi nag farada allahu azza wa jalla ala ummati sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam as siyaam kama faradahu ala al umami allati سبقتها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بقي برب سبحانه وتعالى مو فرط التقيت ينت صلى الله عليه وسلم ليني وخكور كونكور لفي يغلا ndax amna ay xéetu fi jitu won yo xamni moom kay seen koor ak sunu koor moo bokkul ndax ñoom seen koor am na ci ñoo xam ne dana dëkke koor waaye am na ci ñoo xam ne naan woor bis noppalu bis bu dee xeeti yent bi salaay sam nag yàlla moo faataal ci ñoom koor comme ni mu ko faataale woon ci xeet yi fi jiiti woon waaye ngir lan mbokk yi ngir lan du dara lu dul laallakum tattaquun ngir ñu mën cee jëlee lii ñuy wax attaqwa te moo di ragal yàlla ndax ragal yàlla moom mooy lépp nit ki bu xesee ragal yàlla rek dana julli nit ki bu xesee ragal yàlla dana xaj màkka bu fekkee man-man ba am na nit ki bu xesee ragal yàlla lépp lu sunu borom dégle dana ca nekk waaye nit ki bu xesee ragal yàlla lépp lu sunu borom tere dana ko moytandiku dana ko daw du ko jege mukk abadan waaye mbokk yi nit ki bu xesee ragal yàlla dana rafetal digganteem ak boroomam waaye dina rafetal digganteem ak moroomam waaye kenn du ko gis ci loo xam ne dana accam loolu moo tax sunu borom faatal ci ñun koor bëgg ñu ci diplôme bii nga xëy moo di attaqwa te moo di ragal yàlla te ragal yàlla boo xisee am rek sa aljana taxaw na mbokk yi rawatina mbokk yi nga xam ne ñooy déglu fii ci seen télévision Safina TV eh, koor googu ay yaaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر القرآن ne فعدة من أيام أخر lu tax يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الحمد لله mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na koor googu ay fan la yu ñu konte yu ñu lim ba mu toll ci fanweeri fan wala mu toll ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent kan ay fan rek la waye bu fekente ni eh, gis nañ ni fan yoy mi ngi toll ci wéri fan wala ñaar fukk fan ak juróom ñent suñu borom neena bu koor gi diké comme mu nga febar ba mënu lo wor comme fekk itam nga wara am ab tukki boy tukki té tukki bi mënul and ak koor ndax jafé jafé yi nga xamanteni mom mom la mom mom ngay wara jankontel ci biir nanga nga konte fan yooyu le nga feebar na konte fan yooyu le nga xam ni yaa ngi ko fas yéenee tukki bu gi koor gi paase nga fas yéene nag fay bis yooyu le moo tax ko mu ni ay yaaman maadudaat lu war loolu mbokk yi yàlla bëggul lu diis lu metti lu tar ci jaamam bi waaye lim bëgg ci ñoom mooy ak woyofal waaye ak yombal بقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك قد افترض الله عليكم سيابه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتقل فيه مرضى السياتين te itam wa fiihi laylatul qadri xayrum min alfi shahrin xadisun saxiix dañu jëlee ci abi hurayra radiallahu taala anhum wax ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di koo xam ni bu caabaan musaa dugg si daf daan soññee dëgg-dëgg soññee daf daan ñaaxe dëgg-dëgg ñaaxe waaye fu jullee ba sëlmal da naan lu wëlbét jàkkaarloo ak saxaaba yi di leen bégal di leen bégal ngir lan di bégal ay saxaabaam ngir xamal leen ni weeru koor agsi na walla weeru koor dëngmal si na di weer woo xamante ni weeru barkeel la te barkeel rek am solo daana leen xamal itam ni weeru koor day weer la woo xamante ni yàlla moo ko farataal ci yéen te lu yàlla farataal ci yéen nag war ngeen a taxaw pour war ko joxe lii daana ko soññee moom alayhi salaatu wasalaam waaye tam daana leen xamal ni weeru koor weer la woo xamante ni dañ ciy ubbi juróom-ñetti bunti aljana yépp ngir xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana yeneen weer yi wan weer nga dégg yonent bi juñu ca loola lu dul ci weeru koor kon lan lay jàngale dafay jàngale ne weeru koor mooy sangu weer yi waaye tam mbokk yi Ali salaatu sam dana soññee ni len weeru koor bunti sawara yi aw dañ ci tej bunti sawara yi lolé tam ab junj la bu am solo waye tam mbok yi alayhi salaatu wasalaam dafa dan junj di xam le ni dañ ci jeng shaytané ba du mën yakal yàqal yenenbi sallallahu alayhi wasallam sen koor motax kon ku tarxis rek sa bakken la waaye itam mbokk yi ci la laylatul xadri nekk mu nekk di guddi goo xamante ni moo gën junniy weer kon junj nañ ma ni ma li ma amoon ci waxtu jeex na moo tax ñu taxawandi foofu incha allah waaye dañu koy wéyal ndax addiinu nasiha lillahi wa li rasul wa li aimatul muminin mbokk yi kon in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh